mboolem commerçant yi nga xam ne demoon nañ ci ñoom woo leen ni ñoo bëgg a boycott wax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne demoon nañ ci ñoom mboolem li wër marché bi muy marché forot ak li nga parce que ñun am ci 75 pour daal na baax ndax gis nañ ni yi fekk seen nañ ci liñ bëggoon mooy 75 pour cent kon nag ñoo ngi sant commerçant yu baax a baax li xeex nag mooy lépp loo xamante ni dafa tege ci kaw yokku te at nuñ ko war a jëm ci askan wi loolu mooy li nga xam ne moo njëkk ci xeex bi li ci doolee ko mooy pont Bosquet li nga xam ne ci yoon wi te koy teg commerçant yi ngir commerçant yi ngir euh, marchandise yokk loolu bokk na ci xeex bi bokk ci xeex bi mooy marché marché yi nga xam day lakk te duñ ci indi benn saafara loolu bokk na ci li nga xam moo ñu a jóg bokk na ci li nga xam ne dañ koy def borom cantine yi te mu leen jëlee fan nekk duñ duñ indi loo fa gën loolu bokk nañ ci li nga xam ni moom lañ li ko war lépp def na ko mboolem garde nga xam te ñoo fi ñoom itam fexe nañ jafe-jafe marché bépp ba kenn ku ne ñu li ñu daal ñu def ñu ko mooy xëy si bañ ubbi sa place ngir naqaru loolu loolu nag ñoo ngi ciy woo ñi nga xam ne ñooy waa état ngir ñu ni ay saafara gën a gaaw ngir lii kat li paradis am réew la toog loolu kat ñun eh, waruñu kon nag waruñu ne dafa am lu ñu naqari te lii lañ mën a bañ saafara ko mooy nañ fexe ba gaaw woote yëf yi saafara balaa 72 balaa